أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw yéen ñépp boole seen ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem sunu waxtaan tey jii mi ngi jëm ci fadlu qiyaamu leyli ngëneelu taxawaayu guddi mu jaral la dara jaral la dog sa nelaw ngir joxe ay naafila te gëm yàlla lal ko ak sàkku ñoddi tuyaaba ci moom borom bi ci alquran dikk na ci bërëb yu bare di santaane xiyaamul leyli ak di tagg ñi nga xamante ni tamit dañoo dog seen nelaw guddi ngir taxawal qiyaamul leyli wa min al leyli fa tahajjat bihi naafila afaan yab'athaka rabbuka nee na ñi nga xamante ni guddi gi na la jaral jóg def góorgóorlu ak cawarte jooxe ay naafila yàllonte yàlla joxle cëru shafaatul kubra cëru ramm ñi nga xam ne dañoo jóg guddi di naafila dog seen nelaw yu neex wàcc seen njegenaay sore seen wéttal ngir rek naafila ñoddi ci yàlla ay yiw nee na bisu pencuma yàlla jox la cëru shafaatul kubra nga am ñooy ramm ramm mooy ko waroon dem safara yàlla jox la yow sa cër ñi la jógal ko àjjana yàlla bu ñu loolu ump tagg na ci alxuraan yi nga xamante ni dañuy fanaan guddi gi yépp di sujjóot di rukkoo di taxaw mooy ñuy julli rek fanaane julli fanaane julli yàlla tagg na leen ci alxuraan ñi nga xam ni su guddi jotee seen dal bu nooy seen njegenaay seen wéttal tabaarakallahu néeg bu confortable ñu am lépp loo xamante ni mën na favoriser nelaw yu neex tatajaafa junubuhum anil madaaji'i ñu bàyyi lal boobu ak njegenaay boobu ak wéttal googu di woo yàlla subhanahu wa taala di ko kañ di ko sabbal tabaarakallahu ba noppi suñu xëyee lu ñu amit baree kas néew ñu tekk fu neex yàlla xolo yi de cër góor yàlla yi nekkoon ci at ci réew mi am nañu kër am nañu néeg bu rafet am nañu ay soxna tabaarakallaahu su guddi jotee ñu teg loolu yépp wéttali ko borom bi rakk bu ñu jeexal teg beneen rakk jàng alquran suñu xëyee suba amuñu naagu naan nangul nañu seen jëf jooju lu ñu mënta am mu jege leen ñu ngi koy joxe fi sabilillahi nañu leen góorgóorlu ñu roy mag ñu baax ñi foofu la ngëneel nekk kaanu qalilan min alleyli maa yahjaun wa bil asxaari hum yastaxfiruun nee na gaa yu néew lañ yoo xamante ni su guddee lu néew lañu nelaw si guddi gi toq nelaw la ñoo am ci guddi gi maanaa yow soo tëddee onze heures ñoom dañoo tëdd minuit yeewu deux heures du matin wuti wuti fajar tabaarakallahu loolu tamit bëgg naa ci leeral bu ñu yaakaar ni rek bàyyi sa lal ak sa njegenaay muy dëmuyu sa soxna déedéet soxna si sharia bi la soxna si sharia bi la soxna yi dañoo laaj ci léeg-léeg masala naan weeru koor borom kër gi daf may dëmooyu wàcc lal bi nee na dafay jaamu yàlla mais soxna si jaamu yàlla la ci boppam kon yàlla du la teg nga di ko jaam wa noppi di lor keneen kon wéttal yi sa soxna jox ko cëram ba cëram wàcc ci yow nga jóg nag yow mu yaralay nga yàq sa nelaw nag nga jaamu yàlla tabaarakallaahu mais di jaamu yàlla di lor doomu aadama yàlla santaane wu ko loolu jara bàyyi xel la gaa yooyu nga xamante ni dañoo xëy guddi gi yépp ñoo ngi ko fanaan jaamu yàlla suñu xëyee suba nag fajar sa ñuy tuub nan yàlla baal ñu yàlla jéggal ñu xoolal bi de mandute fanaan jaamu yàlla fanaan ci alquran fanaan si julli ba suuf sedd nga naan yàlla baal ma yàlla jéggal ma kooku du naagu mi ngi nekk baynal xawfi war rajaa'i diggante tiit su la yàlla nangulul fan nga jëm wante ak rajaaw diggante yaakaar su la yàlla nangulee nga bokk ci gaa yu baax yi yal nañu yàlla bokk ci boole ci giir googu le yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam yanzilu llahu subhanahu wa taala ila samaai dunia kulla leylatin nee na guddi gu yàlla sàkk yàlla wàcc asamaan ba tiim asamaanu adduna bii tiim jaam yi guddi gu yàlla sàkk xaaj bu mujj bi trois heures du matin jëm fajar janoo jaam yi naan anal maliku anal maliku man maa di buur bi man maa di buur bi yow jaamu ana kan moo amoon aajo di ko ñaan ma jox ko ko ana kan moo amoon soxla bëgg ma faj ko ma faj ko ana kan moo defoon bakkaar ak ñaaw téef bëgg ma baal ko ma baal ko noonu la ko yàlla di toppe ba fajar xar audience baa ngoog wante heure boobu ku nekk seytaane ñëw fasal la juróom-ñaari fas ni la nelawal nelaw yu neex ngay xandoor rek la xawla wala quwwata ba biddanti ba biddanti kon mbokk yi na leen di jaral def effort tegal sa montre nga réglé ko baa nga wax sa waajur mbaa sa borom kër mbaa sa soxna mbaa sa doom ni ko yéema heure sàngam soo ma si tanee mu yee la mu jaral la nga jóg soo waree sangu nga sangu soo waree jàpp nga jàpp soo waree tiim nga tiim nga joxe ay rakk tabaarakallahu ngir nga mën a am boobu li ngëneel jàkkoo ak boor bi ak borom bi ku ci nekk si jaam yi mi ngi fees dell ak bàkkaar yoo yëg ak yoo yëgul yoo tey def ka ak yoo tayul yëguloo ko bi ñu koy def ak ñu def forcé def loolo ko ku nekk ngi amee aajo goo xamante ni tabarakallah mënoo ko wax kanamu adduna bi kon nag na la jaral guddi gi la nga naroon dem fu ne nga jonkan fa sàkku ñaan weexal xor nangam nangam na la jaral guddi gi nga jóg te nag bu ko def benn guddi def ko sa programme yàlla ni ñu koy jaamoo da nga koy def programme bu ni tey laa koy jaamu guddi ajuma ak guddi altine yi si des mel na ma neex déedéet da ngay def sa programme dans la constance et dans la durée yàlla soo koy jàmm day sax ci yow bul nekk ba am aajo tey rek examen xale yi wala wutum liggéey wala wutum soxna nga rey sa bopp benn semaine wala benn guddi ajuma def dog yu bare bare bare su loolu aajo ba fajoo nga tekk fa ni ñukk déedéet yàlla dañ koy jaamu jaamu gu sax ànd ak di tiit ak di ko yaakaar yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam afdalu salaati baada almaktubati qiyaamu leyli nee na gën ji julli gannaaw julli farata yi mooy qiyaamu leyli mooy julli bi ngaa jóg guddi nee na raxima allahu rajulan qaama min alleyli fa sam salla suma ayqada imraatahu fa sallat fa in abat nadaxa fi wajhiha alba yan na yàlla yërëm góor goo xam ni tëdd na ba guddi mu jóg yee soxnaam ni ko jógal ndax ñu ànd am tuyaaba xiyaamu leyli soxna si gàntalee mu cax ka ndox ci kanam ndax mu yeewu mais nee na yan yàlla yërëm soxna soo xamante ni tëdd na ba guddi mu jóg yee boroom këram ndax léeg-léeg yow nga di góor ëpp sa soxla sa soxna diine nga yee ko léegi aussi jigéen ëpp jëkkëram diine dimbali ko yow soxna si nga yee sa borom kër ni ko nijaay jógal ñu am xiyaamu leyli su nanguwulee wiccax ka ndox ci kanam tabaarakallaahu ngir mu yeewu sawar ngeen ànd jaamu yàlla yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam bés benn saxaaba ni ko aturiidu an takuna raxmatullahi alayka xayyan wa maytan wa maqbuuran wa mabuusan ni ko ndax yow saxaaba bu tedd bii bëgg nga yërmande yàlla doon sa wéttal sooy dund doon sa wéttal soo nekkee néew soo deewee doon sa wéttal ci biir bàmmeel doon sa wéttal soo dekkee mun ko ah kay yaa rasulallah mu ni ko na nga jóg guddi nga julli sa roq biir néeg boobule nga am foofu sa yaram wala di ko jullee foofu yàlla dana ko leeral ba ca baytul atiq tabaarakallahu kon nit ku nekk war nga fexe sa néeg mbaa sa saal benn roq boo xamante ni fa ngay teg def ko sa jàkk sa zawiya biir néeg teg fa sa sijaada teg fa sa kaamilu alquran teg fa sa kurus mu lay rek rappel mu lay rek fàttali si yow soo dugg see rek ni ah war naa naafila war naa jàng alquran war naa zikkër tuuti mais soo amul benn rappel da ngay fàbbeeku rek kon rappel boobu tax na ku ne war nga fexe am sa roq tabaarakallahu benn zawiya yàlla di ko leeral ba baytu atiq yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam rakaataani يركعهما ابن آدم في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها ولولا أن أشق على أمتي لفرضتهما عليهم ñaari rakka nga jóg guddi julli ko nee na moo gën lu àdduna amoon nga am ko nga sarax ga fi sabilillahi loolu moo ko gën mooy wurus ya ak gétt ga ak ñam yépp nga amoon ko saraxe ko nga jóg guddi julli ñaari rakka moo ko gën ne su dul kontoon bañ teg sama xeet coono naa ko def buri farata ci ñoom kon sallallahu alayhi wa sallam yéene gi mu am ci xeetam bëggul kenn tànn leen bëgg nañu am ngërëmal yàlla ci lépp ci seen dund seen dee biir bàmmeel suñu dekkee nee na su dul konte woon bañ leen teg coono naa ko def buri farata def ko yow sa farata def ko sa farata su la ñu di yërëmee nga yërëm sa bopp lépp yàqu moom yërëm nañu mais ñun bu ñu yërëm suñu bopp nañu ko tegoo tabaarakallahu am na ku ñu nettali si jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna fulanan yusalli leyla fa ida asbaxa sariqa fa qaal sa yanhaahu ma faala waa ji daal yàlla may na ko julli guddi amu ci dend guddi gu jot daal dana dog nelawam fanaan ko ba salaatu mais su xëyee suba ndeke sàcc la métier wam rek mooy ku mu fekk sa taabal ramasser yépp looy métier wam ñu ne fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko diw de ñu ngaa gis nii ku am itte la si julli guddi wante métier am sàcc la mu ni insha allahu julli guddi googu dana ko fajal feebaru sàcc gi waa jooju mujjatul sàcc kon julli guddi soo amoon ay modd ay doyadi si sa si sa xol ci sa nit yoo xamante ni matul rafetul insha allahu taala yàlla dina ko teggi sallallahu alayhi wa sallam it joxe na dénkaaneem ci xajatul widaa lan la wax ayuha nnaas afshu salaam wa atcimu altaam wasilu arxaamakum wasallu billeyli wannaasu niyaam tadxulu jannata bisalaam limaamu tirmisi moo ko solo mu ni mbokk yu tedd yi na ngeen wesaare jàmm seen diggante baatu assalaamu aleykum wa rahmatullah bu ànd ak yéene bu sell indil nit ñi yiw sooy dem nga tàggoo ci assalaamu aleykum wa rahmatullah nga bàyyi fa yiw bàyyi fa jàmm nee na ngeen di leele ngeen di togg ay ñam jox seeni mbokk jox seeni jege ñaale jox seeni soppeti yàlla tax na ngeen seqi ay jéego ngeen jokk seeni mbokk bu leen yéem nit ndax dara jaam bu leen xeeb nit ndax woyof mbubbam na ngeen jokk seen ay mbokk te bu leen xeeb benn doomu aadama na ngeen di taxawal guddi julli waxtu wagaayee nelaw nee ni yii xeetu dénkaane ku ko sàmmoonteel da ngaa dee rek dugg àjjana insha allahu taala yàlla bu ñu loolu ump ba tax na yàlla nañu yàlla xiir ci boppam te may ñu kattan ak cawartewu qiyaamu leyli te mu nangul ñu ko allahuma jacal jamcana hada jamcan marxuman وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين
ñoo ngi leen di yeesalaat julli naafila bi nga xam ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni guddi laylatul qadri julli na si ñaari rakaa rakka bu ci nekk gannaaw alfaatixa nga jàng qul huwa allahu ahadun juróom ñaari yoon boo sëlmalee wax astaghfirullah wa atuubu ilayhi juróom ñaar fukki yoon yàlla maa ngi laa jéggalu maa ngi laa tuubal julli la goo xam ni képp ku ko julli fa nga toog yàlla subhaanahu wa taala dina la jéggal sa bàkkaar jéggal sa ñaari wayjur yebal malaaka sa aljanna mu tabaxal la fa kër bu ràññeeku malaaka di la rooseel garab yi te doo génn àdduna te teguloo sa bët ci boobu lay ngëneel yàlla bu mu ump jullit moo waral saxaaba yu tedd yeeg ulama saalixuuna yi di ko naafila ci guddi weeru koor gi yépp di ci yéene màggal laylatul qadri ñoo ngi leen koy dénkuwaat ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته